Noticias, noticias, noticias, noticias. Notre télévision, notre télévision, notre télévision, notre télévision, notre télévision. boole sëñ Jili Bakke man maa nga dëkk eh, Ñaaxar maamam doon ñëw ci suñu maam loolu moo ñu tam ñu ñëw nekk ci ñoom gannaaw suñuy maam ñoom lañ doon àndal ñu bu rek ñu waaw ci ñu rek lañ ci am ak yaakaar gu ma sëkk nag waaw te di ñaan rek yàlla may ñu di ñaan di ñaan ci seen barke maam waaw loolu moo ñu indi bi ñu gis suñu maam cheikh ahmadou woon nañ ko jàppale su euh, nu muy teralee ay ganam ak ah, jullitu yàlla yi tey ñu ñëw fekk la su waañ bi yaa soxna yeex yëpp euh, ma gis ay soxnaam ñu bokk si waañ bi la moo waral loolu ah xanaa jàmm ak salaam rek xam lu amu rek lu amu rek baaxul ndax comme sëñ bamba ñun la liggéeyali woon nee na bu ñëwee nañ ko ko santale kon lépp lu ñu def ci waañ lu mu métti métti ñun mënu ñoo jot mënu ñu koo jot dañuy jéem rek dañuy jéem rek te di ko sant di ko sant rek nag Mbàkke dañ koy sant rek moom sëñ Tuubaa dañ koy sant rek waaw ndax li dajoon dajuñ sax lu dol noonu waaye sant rek gannaaw nee na bu bés bi jotee nekk ko sant le ñu sant la ko rek te yàlla tax waaw ah, ñu gis la nga am benn euh, jàmm ak soxna sëriñ bi euh, jàmm jooju la mooy secret bi jàmm jooju comme gannaaw sama maam ñoo doon dox ak ñoom ma ñëw fekkaat fi ay seet di dox ak ñoom ma ñëw seen jabar yëkkati ma ca kaw du ma laa suuf du ma xiif du ma mar baax ci man lool macha allah ñoom ñëpp nag jabar seen jiil ak jabar seen Abdou Mbacke maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu bu baax ba bëgg xam tur wi nan la. Dieynaba Diop. ah. Dieynaba Diop. Dieynaba Diop tey ñu fekk la si Yoff. waaw tey ñu fekk la Kër Sëñ Jili Mbacke. Euh, nga jóge Yoff indi daayira bu mag. tey ñu bëggoon xam euh, kóllëre googu fan la jóge. yéen rek seulement ca biir ko laa fekk nu takku bi ne salaamaaleykum ñu jox nu dépassé du daay dem marché Sam duggi du ñëwee day takk nu dugg waañ mu takk nu dugg waañ ñu jàppale nu nag lool mu toxu fii mu toxu fii. ñu na bu ñu leen bàyyee ba soobee yàlla ak yonent bi kenn da cee dee rek ñëpp dee ñun ñëpp dee nañu daayira bi kenn menn man maa ci tane maa ci ak sama mag jafe kenn dëkkatu ñépp dem nañu te loolu gën a yàlla te nit ñi fi des xamul suñu tey xamul suñu ëllëg kon damay ñaan yàlla daayira bi yàlla fóon daal ko ba ca kanam ak kanam ak kanam ñu ci bëgg duñ ci ne yàlla nañ ko yàlla defal. njabootam fii ji yàlla bàyyi fii yàlla na nu dunda dunda dunda ba seen sut seen maam jaw fan ndax seen maam ja baaxoon na lool te ñoom it kenn gënul leen ndax ñu jël sama njaboot jiital leen te sama njaboot xamuñu dara waaye ku nekk ak kala doy rek xam nga yàlla nañu yàlla mi gudd fan ak wér gi yaam ñu fekk ay déwéni déwéni déwéni déwén ak déwén jéeg déwénaati jéeg yéen ñi fi ñëwit yàlla na yàlla guddal seen fan yàlla na leen yàlla may wér may gépp nag Assalamualaikum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu bëggoon xam tur wi nan la. maa ngi tudd Mame Asta Iyane Dieng. Mam? Mam Asta Iyane Dieng. Asta Iyane Dieng. oui. ñu bëggoon xam euh, lan nga si kër gi. man nag doom laa ci kër gi. di xa yaa euh, di sama goro. Euh, ñun ñëpp fi mu ne nii ñoo bokk nday ak baay ñi nga gis ñu niroo ñun ñoo bokk nday ak baay. yaa nay ñu ngi koy sant di ko gërëm wax dëgg fa yàlla boot nañu jàppale nañu xooluñu ni kii ay kiyam lañu mais dañoo xool jàpp ñu comme doomam lu ñu jur di ñu di ñu loo xam ne lu bon la lu ñu war a def dañuy ñëw dimbal wax ñu nànk ak teggin nag tey ba ñu def ko wax dëgg fa yàlla ñii ñu amuñu seen fay nag wax dëgg fa yàlla amuñu seen fay parce dañoo jàpp comme ay doom tey mënoon naa ñoo xool beneen bët mais xooluñu beneen bët dañoo jàpp comme seeni doom wax dëgg fa yàlla ñun jooyuñu xiif jooyuñu mar wax dëgg fa di sant sëñ Jili Mbàkke mooy sama borom kër wax dëgg fa yàlla jàppale na tey mënoon na maa indi ci kër gi mooy xool beneen bët waaye dama bàyyi Dakar may liggéey te loolu bëriwut bëriwut ci famille Mbàkke Mbàkke kon nag aw seen fay ndax xoolewuñ ma siisuñu ma wax dëgg fa yàlla xooluñu ma ci benn bët boo xam ne ñaan la wala siis déedéet waaye dañ maa jàpp comme seeni doom waxatuma laa ko sëñ Abdou sëñ Abdou mooy magu sëñ jiibi wax dëgg fa yàlla kooku moom dafa baax a baax a baax dama naan moom day ree rek day ree rek moom xamul lu ko metti xamul lu ko lu ko lu ko kii moom foo ko gis moo ngay siiñ waxatuma laa euh, ku ma manqué muy kan euh, papay sëñ jiibi kooku sama xarit la billaahi wallaahi su ma toogee moom damay damay ree man pour man sax damaa perte te dëgg la sax damaa perte ndax ba mu gaañoo dama ne man moom amatuma koo xam wéeruwaay billaahi wallaahi damaa ne amatuma wéeruwaay parce sa man sëñ euh, papa yi dama euh, bu ma lay wax sax doo xam ne tax ma wax ko waaye dama kaa xam avant avant naa ko xam boobu gisaguma ko kon kooku wan na ma ay baatinam avant billaahi wallaahi kooku moom amuma fayam te damay ñaan yàlla na ko yàlla yokku leeram taas suñu ci bàkkeem ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que euh, man dama pett sax laay wax billaahi dama pett kooku baax la billaahi te lu mu lay wax yëpp sa njariñ rek lay doon sa njariñ lay doon euh, jàppee ñu doom xam nga lan moo gën euh, kii mu xool la bët boo xam ne xool la ba nga xam ne ma ba ne la yow eh sëñ ji li mun ma Mbàkke mun ko kii damaa bëgg nga tuddee ko doom kooku eh, nga tuddee yaayam doom am naa am fayam Mbàkke sëriñ Fallu Mbàkke maa ngi toog sëñ ji la ngi toog mu xool ma xool ma boobu mun naa ko mujjee gis boobu mu may wan ne mu ngi dem yaa may dégg xanaa loolu mooy jàpp ko ah eh, kii yaayam daa génn àdduna mun ko waa mun ko tuddeel yaayam doom xanaa loolu mooy jàpp ko kooku aw ma fayam wóor na yàlla aw ma fayam wóor na sëñ Tuubaa maa ngi ñaanal ñëpp nag wax moom damaa jafe waaye nag wax dëgg fa yàlla ñëpp dañ maa bëgg wax dëgg fa yàlla dañ maa bëgg te xooluñu ma bëtu siis doom lañ ma def surtout yaa nday wax dëgg fa yàlla. ah tey ñu gis yéen ñëpp ngeen nuroole mbokk yi ñëpp ñi nuróo ay soxna lañ ci kër gi. Ah, tey seen diggante relation boobu nan la demee seen borom kër sant Mbàkke nan la relation boobu demee. Ah, relation jàmm ak salaam rek boo ñu gisee ñun ñëpp ñu bokk nday ak baay gis na nu ñuy reetaanee nii noonu ñu mel. wóor na Serigne Touba am ñu kenn xaj ak seet amuñu kenn ak xaj ak seet kee moo mujjee mooy maman moo fi mujj mooy ñaareel sëñ Abdou sëñ kii mooy jiit ma nday Asi ñun ñëpp ñoo bokk nday ak baay euh, kee jabaru sëñ kii la doomu sëñ kii la Cheikh Ibra waaye boo ñu gisee ñun ñëpp. maaleykum salaam ah, jëwri ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay fay ñu bëggoon nga présenté ñu xam tur yi tur yi Mouhamed la Mouhamed tey ñu ñëw fekk la si waañ bi nii euh, kër seen jili mbàkk tey lan nga ñu wax tey si berne yi ngeen di togg di bendel gan waaw berne yi ñu ngi togg yàgg nañ ko def suñu bàyyee ko daa def ak suñuy maami dan nag ñu dem ba nekk si ñun ñu nekk ci waañ bi nekk jëwriñ jëwriñu waañ bi chaque jour ñu ngi koy def moom chaque màggal bu ayee dañ koy def ñu gis na yéen ñu nekk si waañ bi da ngeen di toggoo pare te du ngeen lekk la ma waral. waaw boo nekkee si waañ bi di togg da ngay togg pour bennal gars yi mais après si biir mooy loolu noonu na gars yi xewlu rek gars yi moom bu ñu xewloo boo pare rek yi des yëpp ma garaawal mën naa xaar. man dama gis ne secret bi fii la ëppee. waaw fii la ëppee moom fii mooy liggéey suñ moom fii la moom fii moom boo paree suñ tuwaay moo lay defal la lépp mooy moo lay reggal ba nga regg daal loolu moom suñ tuwaay moo koy def. tey la ngay wax gi tey kër gi nga ne muy kër sëñ Jili Mbacke la ngay wax tey si kër waaw kër sëñ Jili Mbacke moom neex na moom chaque màggal nii lay demee chaque màggal day gën a yokk sëñ Jili sëñ Abdou daal vraiment vraiment ay sëriñu kéemtaane nañ sëriñu garaaw lañ billaahi màggal yi moom neex instant moom niñ jot a gis nii moom neex na trop sax neex na torop neex na moom bu baax a baax la nga wax si MS production waaw ah, ñu ñu ngi gii rek chaque année màggal gi yàlla na gën di yokk yéen ñi tamit yàlla na ngeen koy gën di taxaw ko nii chaque année muy gën a neex dal bi tamit yàlla na jëm kanam lépp luñ si bëgg yàlla nañu ko yàlla defal si barki màggal suñ Tuubaa bi di gërëm suñ Tuubaa ak maam lamp bu baax a baax a baax. alhamdulilah maa ngi lay siyaare sant ka alhamdulilah am tawfeex. ñu ngi am tawfeex bu baax waaw yokkute rek wax dëgg yàlla yokkute ku nekk xam ne ku nekk gis na dal bi daaw ni ñu fi ñëwoon ak ren ni ñu fi ñëwee si zaahir rek laa la wax de am na changement bu baax a baax a baax si zaahir rek si yan anam mooy ba ñu ñëw ay tout tànk kese waa daara Taysiroul Hassir ñooy daje jël bis engagement bis booy xool bis booy xool ku nekk boo ko xaymaa li ñu def fii fépp walaay lancé bu ñu ko xëyee war na mat un million ak lu teg sax si ay tout tànk kese si liggéey Sëñ Tuubaa benn mooy yi nga gis nii rajo yeeg baas bi yëpp ñoo ko jaantil ci liggéey bi waaw. waaw gis nañ euh, tey ngeen jël guddi gi yëpp. waaw guddi guddi màggal gi. ngeen jàng xasida Serigne Touba yi naka naka naka ngeen yëgee loolu. waaw suñu suñu tawfeex dama naan. malaan moom bu bàyyee bu bàyyee maanaam li ko war a faj du dul ko war a faj. man xasida yi ñun dafa nekk loo xam ne su lu ñu war a faj li naan suñuy vaccin mooy xasida yi. ndax si nekk ku neex gis si guddi gi yëpp nekk si xasida yi te buñ xëyaatee tamit noonu lañ koy doxalee. ndax xasida yi dafa koowee lépp boo xoolee nag kitaabati faaxat su yoo xa tarbe bokkul xeer wa su yoo xa tarbe sama xasida كوين سيرني تربية سيرني ترخي سيرني تربية موي كين خم دلالة يار واي سيرني ترخي موي كلا يجي سيني برام كون يا خير نجيم خسدي موي سيني لب سيني كسر من في مولاي واتلي سيمن أينا واو نك نك يبري من في واو مولاي واتلي سيمن أينا نك يبري في نك خم تبي لول يب يجوك يجوك نسي زن تسر من تبا نك خبول جنار بس بس جيلم ولا واو سيني كسر من في يبري لب واو دون لو خم كمان لب نزان واو asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam sëñ soxna ñu ngi lay nuyu bu baax di la bu baax a baax ñu bëgg nga xam wi naan la maa ngi delloo ziar bu baax tur bi soxna Ndeye Fall la soxna Ndeye Fall ñu bëgg euh, nga xam su kër gi euh, avant tout maa ngi ziar ñëpp di ziar euh, kulufum di ziar kilifa gi Serigne Djili Mbacke waaw da ci daayira bi daayira tey sur man maay man maay jëwriñu soxna yi ñu gis ne dañ gis ne yow yaay responsabilité bi yëpp yaa koy yor di dugg di génne sa waañ bi ñu bëggoon xam euh, daayira bi euh, ban relation ngeen am ak kilifa bi. ba euh, ban relation. lañ am ak kilifa waaw moom maanaam sunu kilifa gi moom. dafa doon koo xam ne nii maanaam boo ñu fekkee sax ci ab jotaay doo xam ni ah, danga naan maanaam kii daal maanaam ci taalibe la bokk ndax wàccee boppam. bañ ah. na ko ba lépp la waxtaanee. tey jii bañ na ko buy wax ci bu maanaam buy wax ci daayira bi sax euh, bu bu Bamba waxee wala soxna Ndey wax rek mel ni man maa wax xam nga loolu maanaam euh, war ma war ma bu rëy la jox te loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax a ñun maanaam fépp fu mënti dem rek ah maanaam sag la ci ñun ah. tey jii dañoo doon ay tout tànk teewul mana dañoo dañoo dañoo maanaam ku ci nekk maanaam dangaa am sa maanaam dangaa dangaa doon sa jëwriñu bopp li may faral di wax rek ndax boo xoolee tey jii ku ne xam ne ne waañ waañ wi waañ lu métti la waaye maanaam ñëpp a ciy ku ci nekk yow da nga kat man bu doxee maa ko doxal waaw tey jii ñun maanaam suñu relation ak kilifa gi mooy maanaam dafa suufeel boppam xam nga loolu moo tax nag lépp loo xam def nañ ko muy wàllum Pastef maanaam dañ koy xeeb daal voilà. gis suñu maam euh, Cheikh Amadou Bamba dafa nañ ko bi sargal ay ganam. berne leen ci wàllu berne mi tey ñuy gis ne da ngeen ci sonn te du ngeen lekk la ma war a loo waaw tey jii ku na xam ne ne maanaam boo boo maanaam boo boo jàllee cadre murit yéeg ci yéeg ci cadre Baye Fall ku ne xam ne ne maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii boo demoon ci dal yi ah, amaana ñoom togg bi ñuy togg duñ si duñ si sax ñam ñun tey jii euh, buñ ne buntu murit maam Cheikh Ibrahima Fall te te ñun ci moom la ñuy roy ah euh, maanaam roy gi mooy lépp loo xam ne nii maanaam mooy bende ñun buñ ko xasee ba indi fii maanaam amatuñ ci benn wàll buñ ko xasee yàq gan ñi ñoo tax ñu yàq ko tey jii boo ñëwee fii danga naan maanaam lépp loo xam ne nii am nga ko maanaam yow booy dellu booy dellu sa kër waroo yóbbaale dara moo tax lépp loo xam ne nii def nañ ko ci liggéey bi rek ah dañ koy xeeb loolu la daal. Euh, ñu bëggoon nga présenté ñu ñi nga taxawal ñii euh, ñoom it lan lañ si daayira waa ñii ay membre lañ ci daayira bi kii soxna jaara la tudd kii soxna assu ñoom ci ma ay membre lañ membre fondateur ci daay ci daayira bi am pastef bay bëgg a dee nag dëgg yàlla li ma la wax rek ñoom ñii ku ci nekk si ay ay ay jëwriñ lañ ah te loolu maanaam dañ koy rafetlu te lépp nag maanaam sëriñ bi dong la sëñ jiili sëñ jiili sëñ jiili rek moo ko waral ndax boo ko xoolee rek sëriñ Touba ngay gis ndax lépp maanaam moom sëñ bi la ñu woon ci sëñ bi ci sëñ bi lañu la ñu yóbbu fa la ñu jëmee moo tax lépp loo xam ne def nañ ko def nañ ko rek maanaam dañ koy xeeb te ñi ko koy sante bu baax di ko ñaanal Mbacke Balla mu gudd fi mu gudd fan maanaam euh, yokk yokk daal ba yëg ko te daayira bi ñuy ñaan suñu borom defal ñu tawfeex boo xam ne nii maanaam ay maanaam maanaam chaque at chaque année daal muy gën di yokk te xam naa dina gën di yokk ndax liggéey sëñ Touba amul tànki tànki ginnaaw tànki kanam rek la Euh, comme MS production muy télévision bi dafa ñëw seet si seen bi ziar si ko tey lan mënul si MS production ak sa relation ak borom kër gi di Mamadou Mbaye. waa tey jii loolu lépp rek maanaam mbaaxam moo ko wone ndax ku ne xam ne ne maanaam euh, tey euh, jafe na nga nga maanaam nga am nga am sa ah, ñu ñu ñu wuy si la. te ñi nga xam ne ni bokk nañ ci télé bi nag dafa am ñu maanaam ay ay ay mbokk ay mbokk taalibe yoo xam ne ñu am Pastef lañ comme ñoom sëñ Modou. waaw bokk bokk ci télé bi ñoom tamit am passé bay bëgg a dee lépp ñu mën a xewle nag dañuy teew xam nga ne loolu tamit maanaam dañuy wane ne yéen tamit ci kër gi ngeen bokk waaw loolu daal maanaam ñu ngi koy sante suñu borom waaw di leen ko sante ndax loolu loolu sax maanaam euh, euh, liggéey la liggéey la ndax da leen di gën a yokk maanaam tànki kanam rek tànki kanam rek lay am du am tànki ginnaaw. ñu ngi lay gërëm di la sant kontaan nañ trop. jaajëf waay ñoo ngi ziar waay. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la baalu àq bu ba a baax ñu bëggoon nga présenté wu fii si MS production. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay fay nuyoo di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala ah, xanaa présentation suñu bopp mooy eh, doon ab jaamu yàlla rek bu koy jaamu. bokk ci ñi nga xam ne dañuy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bokk fi nga xam ne ni fu ñu baax ñëpp foofu lañu bokk muy askanu maaram loolu li muy am solo am solo lépp dundal diine ak lislaam moo ko solo ci loolu lañ tënku ñu loolu da ci sant yàlla borom bi subhaanahu wa bu baax a baax a baax a baax jërëjëf sëñ euh, tey première question bi ñu lay laaj tey si sa bésu maam Cheikh Ahmadou Bamba bi tey ñu bëggoon tey nga jox ñu si ay quelques tegtal yoo xamante tey suñu maam wax nañu ko si bésam bii nii. jërëjëf ah, loolu dana yomb waaye du yomb li tax mu yomb mooy baatu cant mën nañ ko tudd ci aw mi loolu mooy tax mu mën a yomb. li tax du mën a yomb mooy cant dafay am fooy toll ba egg ci borom wa taala nga ko am ndigalal cantu di cant cant googu mu jële ko ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala def loolu moo waral sabab bis bii mu nek bis boo xam ne di bis boo xam ne dafa judd woon ñu di ko ko wala bis xam dafa gënul ñu bis la boo xam ne li nit yàlla yu bari doon sàkku eh, ngir mu jafe moom bi mu ko sàkkoo suñu borom subaa subaa subaa ko jox ndigal ngir mu def ko mu xam ci fekk ci aw yiw mu ko fekk si ne day sant la borom subhanahu wa taala eh, cant googu nag amul yemukaay ci digganteem ak digganteem borom subhanahu wa taala gi duñu cantu làmmiñ dong waaye dafa nekk cant goo xam ne dafa ànd ak jëf di ko wax sa làmmiñ di ko jëfee mu feeñ sa jëmm feeñ sa cër feeñ ci lépp lu mën a doon ndax xam nga cant ab jaam bu koy def am na lu mu yëg ba tax mu cant te loolu diggante moom borom tabaaraka wa taala moo tax na sëriñ bi nag nekkoon koo xam ne fu mu dëyeele ak boromam rek ci fii moom borom bi subhaanahu wa taala moo ko xam mu nekkoon koo xam ne nii ab jaam la di nuti yàlla. nekkoon koo xam ne kon nangoo jaayante ak borom bi subhanahu wa taala la loolu bokk na ci fu mu egg rek loolu bokk na ñu ko fa eggalee jërëjëf tabaraka alhamdulilah tey nag ñu bëggoon a laaj seen njëriñ ñu gis daayira bi yëpp kenn desul ñëpp ñëw nañ tey jii euh, ñu gis taalibe yi lu ñu war a ñëw seen njiili macha allah seen njiili nit la koo xam ne macha allah ñu bëggoon xam tey si diggante taalibe yi en tant que surtout Cheikh Ahmadou Bamba tey lan ngay yëg si diggante taalibe yi. macha allah loolu danaa si sant yàlla borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo lu lu lu am rek mooma lu jàppandi rek mooma loolu moom moo ñu ko jàppandal bañ ma a toll fii xam nga waxuma la taalibe yi waaye doomu aadama rek dafa xoor te boo amee cër sa diggante sa borom dafa war a feeñ diggante ak doomu yëpp nag waxuma la nag eh, ab jullit ab war na feeñ sax sa diggante moom ndax eh, cër bi nga xam ne nii moom la yàlla jox doomu ak eh, fonk gi ko fonk loolu war naa tax nga def sa kem kattan boo ñëwee nag ci fi nga bokk muy xeetu yonent bi salaay salaam nga xam ne foofu yërmande képp moo fa war a feeñ ndax wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin kon war a doxale sa diggante mbindeef yëpp waxuma la nag doomu doomu aadama yi waaye mbindeef yëpp aw sànq sax aw weñ woo gis sax muy dox war nga sàmm sa diggante moom ndax àq borom bi subhaanahu wa taala kon loolu war na man a feeñ ba ci jullit ñi doon taalibe yi nga xam ne dañoo ànd ak seen ji di jaayante ngir egg foo xamante ni fu ne mën nañ fa egg ngir diggante seen borom subhaanahu wa taala loolu nag bokk na ci li ñu koy may mooy yitte bu la suñu borom boole ci mbir ba noppi nag yitte moo lay may nga egg fenn fi so yitte jooju nag kenn du ko téye ku lu borom bi subhanahu wa taala ak pas-pas loolu moo waral fu ñu mën a toll rek borom bi subhanahu wa moo ñu ko defal yitte jooju tamit ngir ñu mën ko am ak wér moo ca jiitu wér googu tamit yàlla defal nañu ko baax baax baax waaye lu mën a xew ak lu mën a doon ñu ngi yég ne doomu aadama yi mbindeef yi jullit ñëpp kenn ku ci nekk ëmb nañ sa yërmande ngir jëm yàlla borom subhaanahu wa taala loolu maa ngi koy yëg ci ñi nga xam ne nii eh, ku ma gis rek ngay tu tànk ngay góor di jigéen di mag muy ndaw jàpp naa ne man maa la war a taxaw loolu laa gëm te loolu laay doxee jërëjëf tubaarkalla jërëjëf jërëjëf tubaarkalla jërëjëf. macha allah sëñ Jili euh, euh, tey nag ñu gis MS production ñëw fii di télé boo xamante ne mi ngi si internet bi. Euh, directeur général bi di Mamadou Mbaye di sa taalibe tey lan nga koy dénku tey. macha allah loolu loolu ñu sant ci yàlla bu baax euh, ndax lii dafa am lu muy wane nit ku am foo jëm te yàlla joxoñ la aw yoon foofu rek ngay dëgmal ci télé bi fi ñëw ngir couvrir lan mooy jëmmi kër gi ak lan mooy jëm màggal Sëñ Tuubaa ak kan mooy seen jiit yi loolu liggéey bu rëy la boo xam ne nii mën na egg fu nekk àdduna bi ndax li koy jël euh, dafa amul fu mën a yem euh, ndax du foo xam ne da nga ne mel ni fii laa yem kon bu ñu gisee ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw di feeñal lii loo xam ne yàlla da ko feeñal ba noppi ñëw di def seen yitte loolu da ciy sant borom bi subhanahu wa taala euh, xam ne tey bi mën naa egg fu nekk ndax fi ngeen jaar ba egg ci fii loolu dafay wane ne fu ne fu ne fu ne mën na fa lu ne mën na ko taxawal loolu maa ngi leen ci sant bu baax yéen équipe bi nga xam ne yéen ànd yëpp ci ci ci ci ci bi ak nga xam ne nii mooy seen Modou Sène ak ñi nga xam ne personnel bi nga ànd yëpp waaye sécurité bi ya ci aju yëpp nga xam ne moo équipe bi ñëpp ñoo lëkkaloo di benn loolu ñu sant yàlla borom bi subhanahu wa taala baax di leen sant ngir taxawaay bi ngeen am ba egsi fii xam na fi yitte ak pas-pas rek moo tax ngeen egsi jërëjëf sëñ sëñ sëñ Mbaye jërëjëf jërëjëf Sakho jërëjëf Sakho jërëjëf Taka jërëjëf. kontaan nañ trop ñu ngi lay gërëm di la sant sa njëli di sàkku ñaan gu wér a wér si yow euh, di la dénkaat njaboot geex ñëpp incha allah di la dénkaat programme télé beex yëpp bu ñu fàtte sa ñaan incha allah jër jërëjëf Sakho jërëjëf jërëjëf Sakho si mel ni juróom-ñetti nag. la sëñ bi lawetal ba mu des ñaar. juróom-ñetti nag. ci benn kër. si benn kër. wallaay loolu loolu ab nit mënu koo xiyaas. wallaay wallaay mënu si ko xiyaas. juróom-ñett juróom-ñett nag. dèjà si benn kër. loolu ab xel mënu koo xiyaas. Ah, waaw loolu loolu kawe na de. loolu kawe na de. sëñ ji waay waaw ànd ko ànd ko ànd ko ànd ko ak njaboot gi. parce que Serigne Touba kenn deful kenn demul ñu des. wallaay juróom ñetti nag du caaxaan. dèjà wallaay muy njaboot gi. mooy suñu Abdou. ñu ngi koy siyaare bu baax baax ba si suñu seex ak njaboot gépp ak jëmmi siñ jiini moom bu ñu wax si moom sax suñu xol lay tooy wallaay asim parce que am luñ gis si moom moo tax ñu ànd ak moom liggéey Serigne Touba te duñ si mos a lii nag suñu borom di wax ne man amila saalan fa li nafsi ku jëf lu baax rek ñeel na boppam waaye ba man asaay fa la yaa waaye jëf lu baax lu baax ba lu baax mooy jëful liggéey Serigne Touba yaakaar naa liggéey Serigne Touba amul leen lu moom amul leen lu mel ni moom yaakaar naa parce que moom ba bëggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo jëral muy jaayante guddi ak bëccëg dem na ba agsi ba jinne aqsu billahi inni la nabi abadan xillun wa ibun wa maa yabaaw abaaw wala wa maa abaaw yabaaw lu ma neex neex na yonente man maay xarita man maay sofa dem na ma géeñ ko waaw loolu moom daa topp mu doon mu bi nga xam ne ñëpp dem abonné ji. incha allahu dem abonné ji. wa MS production. na fa ñëpp mooy waaj a dem. non suñu télé la. fii waaw ku ko wut du baax. ñun ñoo ko moom. moom mooy yëre fa nekk lëfër lëfër geeg saa <laughs>